monsieur le premier ministre membre du gouvernement ñëwaat ngeen fii ci assemblée nationale ñu di leen dalal ci li nga xam ne ne li ma leen ko waxoon keroog bojo bojo yi ñoo ko déposé motion de censure boo xam ne ne bi nga déggee seen président de groupe xam nga politique def ci baax nit ki buy wax mu am feeling loolu def ci baax

quel que ça quelle que soit sa position d'opposant mais ñii duñ say àndandoo parce que amuñu niveau niveau bi moo baaxul il faut réfléchir et eh, mais malgré on comprend que vous êtes candidat ça aussi vous le connaissez nous savons que vous êtes candidat ça nous savons que il faut le comprendre yéen a ngi ànd mais cokkaas yaa ngi ci biir mais l'histoire nous dira te fii laa ko ci assemblée nationale ma ne mbooloo mi déglu ngeen sénégalais yi ñi nga xam ne ne ñoom ñoo déposé motion de censure ba nga xam ne ne gouvernement bi na démissionné malgré voté nañ fi six mille quatre cent et quelques milliards nanguwuñu voté ci benn budget jël nañu ay kaddu ay yoon même bourse de familiale bi ñuy koy génnee di ko jox ñi nga xam ne dañoo néew doole yéen wuñu leen ko ñu ne loolu lépp nañu ñëw gouvernement bi day na ñëw tey fii ci assemblée nationale ñu koy daaneel tuuti ngeen ci loolu loolu ñëw ñu wax leen beneen bi encore ma dégg fi benn jigéen jël kàddu jigéen dirigé woon suñu liste fii Benno Bokk Yaakaar maay wax ak moom de Farba Ngom xam lépp nag maay wax ak moom xam lépp de moom laay interpellé bi mu nekkee premier ministre fii ñëw fii def déclaration politique général un jeudi soir après le conseil des ministres bi ma ko seetsee nan laa ko seetsee ak nan laa ko seetsee woon ak li ma ko seetsee woon doo ñëw ba ci fii tey taxaw di woone sa njub ne yaa gën a jub Sénégal li doon jaar sama loxo mooy ñëw di la ko indi loolu njub la man mii sama loxo la jaar de man mii tey li li taxoon mu jaar sama loxo xam nga xam naa man duma daw res je prends mes nañ ma ci woow fu ma woo ma pour wax ne ne dangaa jub di woone sa njub c'est trop taar loolu dafa baax nit ñi xam ko c'est-à-dire que taxaw ti ne plus dans une position d'être avec Macky Sall di wane na man jub naa nii na du dëgg waay il faut honnête il faut être honnête ma ne dama leen di wax lenn dama leen di wax lenn rek li taxoon ma dem ci moom man xam naa moom xam na moom laa doon bëgg a cuisiner rek man borom pexe laa pexe yi ma defoon ba cuisiner ko moom xam na man xam naa na ma interpellé na ma interpellé suboo u ginnaaw suboo c'est peut-être pas d'autres xam nga waxoon naa ko fii ci benn ministre déggatoo keneen teg ci kàddu lii aussi moom laa ko wax na ma woo suboo na ma woo ginnaaw suboo et je suis prêt à répondre cette convocation maa la wax loolu ma ne Amadou Ba monsieur premier ministre fii incha allah ci assemblée nationale cette motion la dinañ ko lem taxañ ko teg ko ci enveloppe dem suul ko ci géej woon leen ni leen de ñëw leen nii ngeen xool li nga xam ne yéen ko déposé woon ils ont été battus dañoo xamatul ban yoon la ñuy jaar loolu tax merci cher collègue merci beaucoup